والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وبكي وجودي ربك العليم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نؤمن بالجنود بدل الزراعة بدل الأرواح بدل العالم بدعانا الشيخ محمد بن العطاء وقد نفرق من بلد الكبير di ziare bu baax seen alal ci Ahmadou Bamba ñu ngi fexe woon ci seen Ahmadou Bamba bi kala moo wëri sëriñ bi moom lay yëngu moom lay ziare moom lay yokkee moom lay ñaanal di sant yàlla ci bis bu mag bi nga xam ne te yii ñu yundal ci ci déwén bi te boole leen ci moom lay sant bu baax a baax sëriñ bi sax woon ci ñun lu am ay jiw yi ñuy dajale rek ci jataay bi ndax xam nga ngeen détaillé société yi day gis boo xam ne bu am taarix la ci loolu moo demee ndax sëriñ bi day wax ne màggale ko beneen bi kon ñun ñii di màggale ñu bénéficie ko sasal ndax bu ñu bénéficie woon màggal de wàllam kon alhamdulilah rabbil alamin lu ñu fa sëriñ boole fi ci màggal ci mu ne ko léeg-léegi yàq boo xam ne léeg-léegi ko juróom-ñaari at dara yàqu ba yéen njabootam te ci ay kër lañu tàmmeeku dëkkaale leen wér lool moom rek ci biir noonu amuñu koy waxal ñu amuñu koy waxal leneen ba mu am ndam ñu yi am yëpp fenn ku ne yóbbu ko fenn ku ne yóbbu ko fa ba yàlla doon bis si tey jii onze novembre nga xam ne ca la wàcc ci béréb bi nga xam ne moo di waaxu bu fas yi ci Ndakaaru ndax mu wóor a wóor la ndax semaine bi mi ngi déparé d'abord le 30 mois 1902 nga xam ne mooy 30 la départ waaye ci nguur bato bi bu ñëwee ñaw taxaw na ca port ba nga xam ne moom la ñu wax Grand Moulin waaye ginnaaw moom bu jógee fa si le 3 11 juin 1902 ñëw taxaw ñu wax Conakry ginnaaw moom bu jógee fa le 11 juin 1902 waaye mu am si ci Dakar si port Dakar di si talaata la 11 de. 11 novembre 1902 war a dëppoo bisub talaata war a tolloo fukki fan ci weeru Safar ci 1320 ci la wàcc ci dëkk bi Ndakaaru daal di wax fan nit bi نزع من باطننا الأشجار بجاه واحد قد محى الشجر يعني يلا مدري ولا الذي أبي المخي كذا الذي رسول الله لمن فكر المخي لهذا بداية العظيم الكوني معضدا عند جميع الكون waaye yàlla lan ma defal ci sa sarale di mag ji man nekk ku ñuy màggal ci àdduna bi yëpp moo tax àdduna bi yëpp danañ marché di màggal ci Cheikh Moustapha nafa am fi baxri nafa am amna sirtu bii abadin mu afdala jariñ ma ci tiit njariñ mag loo xam ne ca laa mujjee nekk ku ñëpp di màggal man euh, Cheikh Khadim boo xamante ne waaye dana ni على الذي وجد كل ذي الجاه والرسول مع الجاه ووجد خير الرسول sama lépp yàlla laa ko jox ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak alquran karim waaye lépp ko doon sax am naa rabbana léegi di hajal lahar suu'an xawaahu layla aw nahaar lépp luy lor yàlla liy faxaar bi ak note dàq na ko ba mu ma ak lépp lay ay woo xam ne guddi làmmoon na mucc naa ko waaye lépp ay woo xam ne bëccëg làmmoon na mucc naa ko daanaka fii la wa lil rasuuli a kitaab asasa umri min adan wa min ajal bëgg gi ma bëgg yàlla bëgg ko rasul ne ak alquran fegal na ma ci sama dund lépp loo xam ne lor la wala lépp loo xam ne gàcce لم يحصل قول مني خليني لنحبه لله والرسول المصطفى لأن لم يكون كلمة ما يحبهم يلا ما يصبهم ما يحبهم رسول الله ما يصبهم بعد لكل من يوم سعادة كوني معصوما بخطا عنه لا يكون أبخل كنكري من ندم تلف الوقت من فتبعها ناجيته سنين وحدي وحده ولي أنجز تعالى وعده te ci wàllu ak yàq laa déyaale suñu borom man képp ci moom dong waaye lu ma diggoon def na ko moom yàlla naa jëlee nii na wax ci wax na wala ya anjaza taala wax waaye yëngu ci wax it ne mattali ya sirral rasulna fil xilaal man qaala lil qur'aana afdal al kalam wammatal dama sirral rasul waaye yëngu ci damaa wammatal alquran wax na xikmata xayral aalamiina fii quelques léegi asraar fa daxale jëm ci liggéey bi ma doon liggéey Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tàmbal nañ ci biir sama xol man Sëriñ Tuubaa ay mbóot yoo xam ne ak sama man mi lu feeñ la mu ne waaye ci biir liggéey boobu dama caa amee ne al ayn wal amal wala yumnu maa sadaqaha lillah bi xamama xam-xam ak jaamu yàlla ak yii barke yi yàlla wàccal na ma ma jox ma ko man Ahmadu Bamba lisaanal alquraan wal uluma annaafiaa lillah wa taalima sëñ Tuubaa nee na alquraan ak xam-xam yi am njëriñ ya lépp yàlla wàcce na ma waaye salaba bi tawxiid wal fiqh maa tasawuf fi man nuuru li lamama moo ma wommatal xam-xamu tawxiid waaye ma wommatal ma xam-xamu fiqh waaye wommatal ma lépp loo xam ne wax ne allahu taala bi nadim maa laa yaraahu aqrabun wa ajnabiyun nee na yàlla woo ma tànn ñu rasulullah yoo xam nit ki du ma jege ba xam ko nit ki du ma sori ba xam ka gën a jege moo ko gën a umpule ka gën a sori moo ko gën a umpule faraxtu sisiyat baraayaati xidam inda xidaahu wa kafa lii ma sadam déglu naa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya waaye fekk dama lépp loo xam ak yàq niiraam waxaale dinaa bi xayri maraam léegi lii ma mag ya waaye nag lëggéey doon lëggéey yi na la lépp ñu bëgg rakiyanillaahu wa rasuul wa ahlu badri wa atani fi suul sëñ bi loolu laay wooyee xuufa uh, nee na ma jërëjëf rasulullaahi nee na ma jërëjëf alxuraan nee na ma jërëjëf laa mun jot naa loolu mu moor yàlla moor rasulullahi moor alquran bàyyeekoo dara te loolu la sëñ bi ma man bu ñu am leex wa rasul wa ahlu badri wa ahlu daman daman daman illahu taala garaman li ahli badrin sahdatu arafama yàlla sama borom kay boole na ci ahlu badr waaye mu waxaat ne ajrul ilaahi wa jazaahu maaxi qad agnayaani an al armaaxi payu yàlla ak payu rasulullahi doy na ma sëkk wala si jël ay gànnaay di xeex tey jii firndeel na ko ba muy dem moom ndog na te tey jii adduna bi yaatu na Afrique yaatu na ñi fi nekk yaatu na ana maami kan ana ban sët tey moo taxawee ci kanam adduna na maa ngi fàttaliku maa ngi célébrer bis bi sama maam ñibbi si woon te xuri kiwul kaalaam dëgg bàyyi ñu lam doon woote di ahmadu jëpp di ahmadu rek loolu kenn defu ko ku dul Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul kon wajjaha lillaahu alladi huwa al-ilaah maa sarrani bilaa gururin aw bilaa ay war nekk ci ba ma koy liggéeyal yóbbalu ma ko ndoxuma ko waaye li may fay dara gis sama diggante kon tanqaadu bi li jannati llaahi ujur walastu anhu xayra xayrin laa ajur fii ba àjjana fay lay jot ku day neex lu jógati saa walla nga ca te lu ma séddale du kenn du jot moo tax Cheikh Ahmadou Mbacké Noreyni yow yaay solution